asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi siiwul seen site internet bi di 24 actu yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk ci naafilay weeru koor wi tey nag ñu dëkkal leen ci guddik fanweer gi ci weeru koor wi juróom benn rakaa lay nekk rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon lixlaas di xul huwallaahu ahad fukki yoon ak benn juróom benn rakaa lay nekk rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon lee leexalaas di xul huwallaahu ahad fukki yoon ak benn juróom benn rakaa nag ñetti sëlmal lay nekk ñaari rakaa yoo julli daal di sëlmal ñu dikkal leen ci waxtu yi ñuy jàpp koor gi 5 heures 17 juróomi waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom-ñaar bu dee waxtu dog yi 19 heures 30 juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee fanweeri simili ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi